ànd ak suñuy moroomu député mais li ñu gis bërki démb Sénégal yeexoon nañ ko gis en tout cas ñun ñi leen di fekki yow sagal nga ñu parce que yenn saa yi ñun ñooy dem ak EG yow doo dem secretaire secrétaire général yaag ñi nga àndal liggéey liggéey bu magu bërki démb bi yépp sagal nga député yi nga xamante ne ñooy ñun di dem ci yeneen dëkk yi di leen fekki un soirée de galaat nga may député yi ñu happy président félicitation may félicité xam naa ne nag dañoo dafa am ku njëkk ndënd ci ràndañ waaye loolu du dara ndax gor bu liggéeyee dafa bëgg ko ko félicité président Moustapha Cissé Lo vous félicite on vous a suivi un peu partout ci liggéey bi nga liggéey ba am ci ndam kon dama jàppoon ni tey ci suba gisoon naa ñu defal la standing ovation ba pare sax doo a passé ci des mais xel du fattu ñun moom dañ lay félicité ndax jàmbaar nga te nit ñi looloo tax ñu ñu naw la man bokk nga ci ñi ma ci ñi nga xamante ni député yi may seetaanaat sama kër pour inspiré wu ci liggéey ci assemblée nationale surtout ñorul bi moom daf may daaneel je me félicite moi-même j'ai été nommée meilleure femme de l'opposition par Mojib France le prix est chez moo tax ma bëggoon a féliciter sama bopp ndax ñépp laay féliciter féliciter leen ma merci beaucoup donc monsieur le ministre euh, dafa am rek dossier bu tàng jër bu ma indaale boo xamante ne ginnaaw yàlla ak yonent bi wax dëgg yàlla war nañ ci wax ndax ci loi de loi de finance rectificative bi passé man jàppoon naa ni wax nga ci policier policier yi ñu raje ñu leen di fal ba gars yi encaissé nañ sama collègue nag encaissé wul ndax boobu daa dawoon ñëw Italie waaye maa ngi ñaan nga jël en cœur le dossier de la Sotrac le dossier de la Sotrac ñor nañu bëri ay borom kër faatu nañ ci ay borom kër feebar nañ ci ay borom kër ñàkk nañ ci seen xel te yii ñuy def bu dee lu baax du doy nañu leen ci boole parce que nag wax dëgg yàlla dossier la boo xamante ne tàng na jër ci suñuy loxo te boo ko yoree on fera tout pour jàppale la nga réussir ko parce que ku ko réussir réussir Sénégal nous vous félicitons ci li nga xamante ne moom mooy sa liggéey di la wax ne am nañ nous sommes sceptiques par rapport à cette loi duñ ko nëbb organique nominant des DG yoo xamante ne par aveuglement on ne les connaît pas mais quand même nous faisons confiance parce que jàpp nañ ni ah xëy na di nga ko teg ci ni nga ko war a teg on vous remercie monsieur ministre je serai pas long ce soir parce que j'ai été satisfaite d'être nommé la dame politique 2019 donc je quitte le palco en vous remerciant yes take care merci beaucoup. jërëjëf merci merci chers collègues la parole est